donc si projet Diapalma diapal nous avons former 400 femmes si 400 à ah, yooyu Nous avons formé 200 femmes ci Taïba Ndiaye ak Fimelash yi li ñuy wax agriculture maanaam béy mais également dinañ leen outiller ñu ngi ci nar a former également cinquante euh, euh, cinquante jeunes filles yu nga xamante ne nii ci euh, région boobu la ñu jóge pour ñu gunge femmes yooyu yu nga xamante ne ñoom ñooy def agriculture bi pour mën a jaay li nga xamante ne mooy produit yi ñuy jëw yooyu ñu ngi war a former aussi cent cinquante jeunes filles ci zone Pikine bi donc Pikine ginnaaw raay yembal ci li ñuy wax boulangerie ak pâtisserie pour ubbil leen ci seen biir gox yi boulangerie du terroir donc loolu yëpp mu ngi jóg ci euh, ndaw ñi pour ñu am liggéey mais également pour les familles. ndaxte ku xam jigéen xam ni ñu sonnee ci li ñuy wax agriculture li ñuy ci commercialisation produit mais également ni ñu dans ci jot ci parce que ñun ñëpp xam nañ ne soo demee ci biir dëkk yi pour jigéen ñi doon suuf dafay métti donc il faut ñu intégrer suñu collectivité locale yi suñu maire yi organisation comme Union européenne yi pour ñu gunge ñi pour ñu mën nous jox jigéen ñi suuf si ñu liggéey ko ndaxte yelloon nañ ko